mbokku internet Actubuzz TV jërë ngeen jëf Babacar ñu amati mbégte contentement bu a baax ñu ngi amati mbégte bu baax jàkkaarloog Coach Soulamine dama demoon nag terrain <laughs> ci seen match bi waa équipe Mor Faram xaw na leen rek 2 la lañ leen dóor fa laa dem fi mu fenn yi fekk ma dugg si géejawaay nag waxtaan nag ñi nga xamante ne mooy ñooñu géejawaay parce que saa bu situation amee ci réew mi man damay faral di génn di jël li nga xamante mooy gars yi mais Lamine dafa am garab gu may jaay garabu ngóor gu am solo goo xamante ne billaahi wallaahi mu ngi def lu am solo ci réew mi parce que jamono ji ñu bari dañu am problème mu kattan képp ku am problème mu kattan nag Lamine ba ma contacté ak sama numéro 77 745 32 31 bi ñu jëflantee ba da ngaa néew kattan takku ñu la xala incha allah day faju mu wér man amul ay da ngay jëjaa benn yoon nga koy jël traitement traitement benn yoon la nga wér am sa jàmm ak salaam waaw garab gi nag yow war naa la cee may. no man doyoo ma dara yooyu. ah man damay sport xanaa ah, gisoo ma. Ah, sport yëpp nga ñëw fekk ma may toog di ñàkk may doyoo yooyu abu ah, yooyu kay ko rek ji nga xam ne ñoo am problème boobu. Hmm. yow moom xam naa garab bi nga yor ba tagg ko nii efficace na. <laughs> na gars yi woo leen abu rek. dëgg la ku ko ci bëgg rek mooy loolu. billaay wallaay. billaay mag moom xam ne su ma turoon turam fii mooy loolu. Hmm. mais moom amul jot boobu day man damay voyage tout abu am jëlal nga jaay ko nit ñi dëgg la waaw loolu tamit loolu yoon la waaw loolu loolu yoon la loolu yoon la mais tey ñu gis Guédiawaye def lu rafet ngeen dajaloo seen biir football ka foore wane yéen bokk ndey yéen a bokk bàyyi tey mbir mi tey ñu ne ko jàngatee tey abu maa ngi leen di nuyu bu baax di leen suyaar di leen màggal di leen baal ak tey baal ñëpp àq di ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg yàlla nañu yàlla musal si seytaane ndax nit ku nekk jaam bu ne jullit bu ne heure boo xëyee war ngay musul si seytaane ndax seytaane moom fu mu xaju rek la dugg lu kenn xalaatul rek seytaane moo koy def ndax seytaane moom dafa doy waar waaw ndax yàlla moo ñu ko boole sunu biir li tax mu def ko moo ko xam mais ñu ñu ngi ñaan yàlla sunu bopp yàlla nañ ci yàlla musal abu li tournoi la tournoi bu yàgg la de match yi ba mu commencé yàgg na de. waa Pikine kon ci yéen la ñuy copié Pikine na tournoi. tey bii mooy quatrième match xaw ma troisième match nañu waalo dóor nañu Ndiaga Sarr dóoraat xaw kan tey lañ football ñu ngi doog a ñàkk contre Mor Fadam. waa Pikine tamit am nañ ñoom tamit ñoom tey la ñuy tàmbali samedi gi tey. <laughs> yi ak espoiru géejawaay ñu tegal leen tournoi ñu teg ci millions yi bari ñu xool kan mooy l'empereur de la jeunesse loolu man man maa proposé Baye Ndiaye. waaw loolu lépp mën naa nekk loolu rafet la. lool lool non non man aw ma lu koy nangu wala yuy bañ man ma. ci jël quatre mbë loolu naa nekk loolu lépp làmb la luy neexal benn journée bu garaaw. lépp luy neexal làmb la ak a mën a ne alburax kay ko bëggee ñoom ko jàmbaar sax mën nañ ko. Gaston production def nañ seen kalaaf ba pare na. Mhm. mais ñii war nañoo mën a boo xam ne ni musul am ci làmb. mooy jël waa inexafa gox ak gox. nga xam ne mën nañuy bokk chaque journée ñoom ñooy bokkandoo journée yeeg yooyu loolu day neex. dëgg la te lu baax la tamit mën nañ ko mën nañ ko mën jël benn mba espoir Pikine benn espoir Guédiawaye espoir Parcelles espoir Yëmbal Malika et ñu def benn kalaaf xale bu ci génn bu ne di am kese bu baax ci làmb di mën a am kër di mën a am oto. te booba yaay doon l'empereur des jeunesses. Mm-hmm. a nekk mais abu li ma lay a xamal. Mm-hmm. géejawaay jàmm ah, <laughs> yaa ngi fekk tey si terrain bi. màgget doyen la biir Géejawaay. moom mi ne li Sengatoon di wax yëpp dëgg la. non Maguette doyen la man man maay wax de waxuma fi Maguette Seck. Ah. man samay wax laa wax. ak li ma gis. Mhm. ndax nit laa koo xam ne mooy li may wax bëgguma di wax lii tey suba mooy wax la le. dëgg la ji Géejawaay ñu ngi ci jàmm. tey Maguette sekk yaa ngi ko gis mu ci terrain bi. football si ñëw na. Mhm. mais xaw ma tax footballu ndax soloon na équipement ak yooyu yëpp ndax man bi may dugg dama jeg jékki gisuma ko xëy na dañ ko woo. wala dara xew moo tax mu dem. mais géej waaye jàmm ñu ngi fi. amul benn problème. xale yi moom ñoom ñëpp. ñu ngi ci jàmm ndax yaa ngi leen fekk seen biir gis nga xàmmeewu écurie Mor Fadam école de lutte Balla Gaye ak ñoom ñëpp gis nga leen mhm. ñëpp a nga fa mais lan moo ñi mënuñoo ji euh, xool ci xale yi parce que tey ñoom ñoo ko waroon njëkkee def ñoom bëri mag yi géejawaay yi mais tey jeunes yi ndaw yi ñoo koy def xale yi ndaw yi tey boo xoolee nañu waxante li fi nekk parce que géejawaay tamit nag euh, ñi ci ñi ci kaw yaa problème bu am seen biir abu ah, mbër mu ndaw amatul géejawaay ñoom ñëpp ay mbëri mag lañ ah, ndax xam nga daf ñoom ñëpp a ngi fayeeku million xëy na kase yi ñoo bokkul mais ñoom ñi xale yi ñoom ñëpp ku si nekk war nga mën a jël say responsabilité bopp te man loolu dugal seen i nopp abu ñoom ñëpp ay kilifa lañ ñoom ñëpp nekkatuñu xale yoo xam ne da nga naan leen jaar leen nii wala def leen nii def xam nga loo mën waxtaan ak ñoom ci bopp rek ku ci def baax na ku ci deful baax na mais géejawaay amatul mbër mu ndaw ñoom ñëpp ay magum jëmm lañ la dëgg la man dama ne Lamine tey damaa toog ba si ba ma ñëw si terrain bi ma gis fa Salif gis fa Sa Thiès muy football ma ne man ñi may man ñi man ñi may wax ñi may informé man ñoom li ñu wax li may jox baaxul de génn naa information yi fooy information <laughs> man ma dégg ñu ne Sa Thiès daa xuloog Balla Gaye génn fii génn dëkk bi dem na voyage yi néewatul kër Balla Gaye mais tey ma gis Sa Thiès ñëw ci biir terrain bi ànd ak yéen ka fooree soulagé ka fa génn waxtaan ak yéen ree mais tey loolu ban jàng ngeen ci def diggante Sa Thiès ak Balla Gaye nag nag ku wax nag ne ne ne na ngi nii loolu nag Lamine ñooñu say nit lañ de. waaw sax wax naa ko mille de fois Sa Thiès sama raq la Sa yàlla def na daa benn kersa buy daw sama digganteeg moom yàlla xam ne tey bi mu ñëwee ba ñëw ba nuyoonteeg man bi mu ci pare pare naa ci mbalagante nañ kaf ree def yooyu yëpp Sa doomu doomu géejawaay la doomu école de lutte Balla Gaye la Sa booy bu yaru la moom moroomam yi fa nekk ñëpp ñu ma jox cër lañ école de lutte Balla gisuma fa booy bu ma fa xam ne nii tey ji séq naa ak yow loo may dépassé amul séquma koog ñoom ndax xam nga lu tax ku ma ci war a wax dëgg. suñ jàkkaarloo wax la ko soo doon si groupe école de lutte Balla Gaye bi laay dugg. te dama lay wax dëgg dama lay attaqué plénière lu ma la bëgg a wax dama la ko fay wax. te si dëgg laay waxtaan ak ñoom. abu man du ma naa féq du ma seytaane. dëgg la aw ma jotu fréquenté benn mbër ñoom <laughs> ñëpp. dëgg la Youssou Ndour ak moo ma gën a jege. dëgg la ko kañ la Lamine gëj a toog seen buntu kër. wala kañ maa xuloo Youssou Ndour dégg naa. la comme boo xuloo comme doo xuloo moom waaw ah, léegi loolu jotee. non dafa teg dama koo gis si yoon boo xam ne nii wala dama koo gisagul si yoon boo xam ne yoon bi ma bëgg. lan lay def Youssou Ba day suus di voler yi comme booy yi ñuy def dagg seen yaram. non daa sañ a def yooyu waxuma si cadre boobu su waxuma si cadre boobu mbër mbër nga. dëgg la Youssou daa tolloon ay jamono yoo xam ne bu metti woon torop gisul kenn. waaw est-ce que yaa ngi may dégg. dëgg man la gis ak ñoo xam ne ni ay borom dërëm ak ñaar dërëm. man dama ne saa bu Lamine jooyee Youssou loolu lu sama doom la. Youssou ragal ma ko wax daal nit ñee fi nekk naan dafa xulóog Lamine dafa dem Youssou heure bu ma ko bëggee xol audio kañ lañ mujjee audio. Youssou kooku suñu njaboot la waaw defal naa rek Youssou chaque instant dañuy déggante maag moom Youssou siqu maag mais gis nga nit su tolloo si benn euphorie. toll si benn dimension da koy bàyyi mu dem seetaan ko tuuti ndax xam nga lu tax mhm. mooy li ma see yàlla magum jëmm la Youssou du xale magum jëmm la mhm. daa toll si euphorie boo xam ne da koy toog seetaan ko. boo ko mu yàqu sànq na. non non mënul sànq ndax yaakaar naa ne xam naa xam yaakaar naa lima def ci moom. Hmm. li ma jot a def ci moom ku war a xam li mu bëgg. non déggoo ma. 93 xam du xale magum jëmm la. <laughs> noonu du xale bul ne xale ndax ku am soxna. Ah. am ñaari bant. Hmm. macha allah kooku dootoo xale magum jëmm nga. Hmm. mais daa am loo xam ne dama koy def ci moom. te nit nag léeg-léeg mu toll benn moment boo xam ne da nga koy bàyyeeg boppam comme li ma la wax léegi ne la école mbëru géejaay amatul xale ñoom ñëpp ay magum jëm la ay kilifa lañ. Mm-hmm. ñoom ñëpp mënatuma see xoj kenn wala par force lii da nga koy def. dëgg la monsieur nduur Ndour. Fils de Balla. Thiatou Daouda Fall. Lat Dior Dougar Peul Gakko. Mm-hmm. ndigal extra ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen suba limee rek damay juub école de lutte Balla Gaye mbër ya fa ba mbëru cinquante mille bi sax si waxtaan ak moom ci bopp laa mën li si des nag moom la seeni seeni yëf bopp mais euh, euh, problème am na si Sa Thiès ak ki nga xamante mooy Balla Gaye parce que tey gis nañ Sa def def benn sortie que mu ne li lu góor di am yàlla may na ma ko am naa kër am naa oto am naa samay njaboot ak samay soxna est-ce que tamit communication boobu Sa Thiès waroon na ko def tamit ci diggante moom ak grand frère am te jamono ji ñu bari di ci dox ay tànk jàpp man mi jooy naa ci jooy yi ah, parce que bëgguma man man lu ñaaw man lu rafet rek laa bëgg abu dégluwuma communication Sa ni nga ma ko laajee noonu la ma ko ñeneen ak ñeneen laajee mhm. am na si droit maa ngi koy ñaanal li mu am yëpp yàlla na ko suñu borom fulal ndax war na koo mën am ndax xale la na baax na respecté na nit te jox na ma cër te nit sooy ànd ak moom wala muy nekk ak yow nga xameel ko rek sa xameel rek war nga koy yéene lépp loo yéene sa bopp moo tax man chaque jour lépp lu ma yéene sama bopp dama koy yéene ñëpp moo tax damay toog daal yàlla ma yàlla fay sama xol Sa war naa am lu ne war naa am sato war naa am lu ne xale la mu ngi si diggu dooleem te mu ngi ci espoir boo xam ne mën na ko may lu nekk su si sérieux wee teg ko ci yoon mais na xam ne Balla Gaye tamit mais non waxuma ci cadre ay Balla ak Sa loolu yow Sa Thiès nga ma laaj Balla Gaye ak Sa Thiès ñoo bokk ndey ak baay Balla Gaye moo nàmp jox Sa mu nàmp. mais est wax dëgg la Sa dafa génn kër gi. non de loolu da ngeen koo laaj Sa laaj ñu ko de. waaw da ngeen di laaj Sa Thiès ba pare l'essentiel daal seen problème. Mhm. am na mooy problème yu ndaw te loolu mënut a ñàkk si mag ak mag ak xaw ma. man maa ngi sama rakk joo xam ne fii mbay maak moom noonu la dër bi la ci kër gi <laughs> ndax maa nàmp jox ko mu nàmp dëgg la mais xoolal loolu yoonu su yoonu kenn nekk si maak sama raq la diggante Balla Gaye Sa ku ciy wax na nga ciy wax loo xam diggante mag ak raq la ak kilifa ak raq kilifa ak raqam Balla Gaye dafa taxawee ñaari position ci Sa magam la boole ci kilifaam la dëgg la kon lu ci waaye di wax waxal loo xam ah, man lu ma man lu ma leen jege jege jege lu ma jege Balla Gaye Balla Gaye lu ma jege Sa Thiès su ma fekkoon ñu ne rinkum daje lu ma mën mooy wax ci lu rafet rek faruma ak Balla Gaye faruma ak Sa ñoom ñaar li ma mën mooy wax ci jàmm ak salaam ndax ñoo bokk lépp ñoo bokk nday ñoo bokk baay mais xale mooy rakk na dem ci magam. la yàgg na nee naa la man murit laa te baatu murit boobu laay doxee mooy mag sëñ Fallou da ko wax. dëgg la mag na jiitu rakk topp. Sa Thiès tout le ak lu mënti lu ko Balla Gaye mënti def. Mhm. du ma toog di jox mukk Balla gay defe toor Sa Thiès laay jox toor. parce que kilifa kilifa la. te kilifa du tuut. ak lu mënti xew. Balla Gaye mooy kilifaam. Sa Thiès ak lu mënti xew na déglu. li ko xelam di may rek te xam naa ne Sa su dégloo xelam rek du jaxasoo kenn mais xaw ma nag su ko si nit ñi bàyyee wala Balla Gaye tamit su ko si nit ñi bàyyee dinañ am jàmm ñoom maa leen di ñaanal daal jàmm yu war sëkk Balla Gaye na xam ne Sa Thiès na xam la Sa Thiès si na xam ne Balla Gaye magam la parce que tout le temps li may faral di wax ba muy métti nag Balla Gaye taxaw nag nangoo leen uuf nangoo leen jaboote nangoo leen boot Balla Gaye mention spéciale Sa sax fu mu mënti toog day ñaanal Balla Gaye ñee fi nekk di wax rek. dëgg la Sa fu mu mënti toog day ñaanal magam. ndax xam na tey jii lii am ni yëpp yàlla jaarale ko fenn seen loxo mag la ko jaarale. dëgg la kon tey jii nit nag su dëgg rek jotee yuy wax tey jii ñoom ñëpp dañuy ñaanal Balla Gaye war nañuy toog di julli di ko ñaanal. tey jii xam ne lu mënti am rek Balla Gaye la lu jiig rek ya njaag rek Balla Gaye mooy njaag. dëgg la hmm. tey gi da naa yëngu ki problème de. ban problème ah sëy papa booy jinne ba yëngatu nag ndey géey eh, abu loolu dégg yëguma ko de man dugguma ci sëy de dugg sa papa sama booy la ndey sama waay la ñoom ñaan ñëpp maa ngi leen ñaanal jàmb ak taw féex mais daa jëlee nga sam dem ndey bu demee maa koy jëli loolu est am na ndax man démb rek xool naa vu naa etc non papa maa ngi ko vu etc mu hmm? ndey géey la def demee maa koy jëli non non ndey géey bi contrat ndey géey daa toll foofu ndey géey toll foofu te jëkkëram booy bu baax la papa nit ku baax la de eh, du wax lu ñaaw du def lu ñaaw te ñàkkul fayda non ñàkkul fayda papa daam am benn fulla soo gisee ñu bëri mënuñu koo bëgg daa benn fay fulla bu muy dégager papa tey ji mën naa ne du féeg papa du dugg si lu yoonam nekkul du wax waxi jàmbur duggul si kenn toppul mm-hmm. kenn mm-hmm. papa man daf maa neex te daf maa doy. mais kanta yooyu noonu ah, nga am jàpp ci rek nga laaj ma ci làmb nag waaye abu yow nag dimbaleeti waaye géej waaye ñu ngi ci jàmm ak salaam géej ah, gi moom dama la wax benn Lamine ak Youssou Ndour dañoo xuloo Sakes Balla Gaye a dañu sa laa xuloo man léegi mais parce que man maa toog ne damaa dem Tivaouane lekku ma kan ma ca benn affaire non non non dama man dama lay wax man gis nga àdduna eh. ñaar yi moo am ñaar yi ñoo am mm-hmm. gis nga xuloo mm-hmm. nit moo koy gis rek ne xuloo dafa am dëgg la tey ji nit ku nekk li ngay doxee rek ngay yaakaar ni ñëpp loolu la joxe man abu ñëpp laa amal jàmm ñëpp laa amal jàmm ak salaam aw ma keneen ku dul jàmm ak salaam waaw man moom jàmm laa am ak salaam ak ñëpp sax waaw waaw kon des kon comme problème amut non déggoo li ma la man gisuma problème géejawaay ñi ibis nit ñi ñoo bëgg wax nii rek di wax rek net léeg-léeg da ngay gis nit koo xam ne day am problème personnel moog ñaari nit ñetti nit bëgg ko def problème mu géej waaye loolu du problème. dëgg la dëgg la loolu du problème waxi waxi 5 tonnes bi mooy. waaw mii naan géej waaye bëggante wu ñu tout ngi jàppante di xeex seen biir. non non 5 allo. Youssou. waaw. gi nii de direct laa la dugal si émission fii la toog naan mi maag yow dañoo xuloo. ah non ah, xuloo woo ah man pro géej géej waaye da ngeen ay problème fan yii de. ah loolu dinaa ko wax léegi léegi Youssou Ndour de sa su su su su doom la suñu lépp la. mais dégg naa da ngaa léegi da jël sa yoonu bopp dangay def li booy def dem ay mbay jël dagg sa yaram. eh deful loolu wax wax na ko léegi si émission bi ma ko Youssou moom dafa su ma koy mere ci leneen laa koy mere mais du si cadre. ci lan lañ la meree. man mere dara. ah defoo dara. demoo fenn wékk fa sa bolok waaw ah, waaw kon kon. te ngaa bañ a tas say jàmbur ci internet nga nekk. <laughs> kon jàmm am na kon. mais Youssou. waaw fan yii géej waaye xamul seen. bul fi nekk di ko faale ba si garab si émission. ga damaa dégg ndéy ak. <laughs> di ko faale gis ko benn téléphone abu mënoo di laaj jàmm mënoo di laaj jàmm. Ah, abu man de fan yii géej waaye maa xalaat seen bayre yi ngeen jël la nag. ñëw jàpp tafaatin duma ko daan ko jàpp mbër yi di daan rek ngeen ñëw ak seen fa lañ jaar bayre gi topp leen bayre bu safee si dëkk ñu lay mel abu tey ji damay waxaat beneen affaire tey ji yaa ngi dugg si benn ton boo xam ne ni tey ji ku si mel ni cinq tonnes waaw wax dëgg yàlla maa ngi koy déglu chaque jour ko jafee. waaw dama koy déglu. waxi dof la wala non fii di ko xas balaa meew ma ko waxuma ko pour taxaw di ko di du ma wax nee naa la man sama àdduna ñaanatuma yàlla wax luy blessé nit wala luy gaañ. dëgg la de ndax man taxawee naa géej waaye. man laaj laaj boobu sonal la ma waaw taxawee naa noo xam ne nii damaa war a wax lu rafet di def lu rafet ndax man yaakaar naa si loolu laa nàmp quoi. dëgg la dëgg la te làmb moo di sport boo xam ne ni soo toppee nit ñi chaque jour di ngay waye di. Mm. te bëgguma waye di. cinq tonnes na xam ne tey làmb su demee géejawaay bañ xam ko Balla moo tax. waaw. mu koy nangu ak mu koy ñàkk bañ a nangu. dëgg la du ma avocat kenn nag défendre tawuma fi pour défendre Balla Gaye. dëgg mais Balla dafa am njaboot. am yaay. Mhm. am ay raq am ay doom. tey jii moom xam na lu tax mu koy woowee jogay xaw xaw ma du jogay la koy wax. jogay Mathia mooy tàngal jongo waaw jogay moom waxuma waxi Mathia man waxi Balla Gaye laay wax. Euh. ndax xam nga lu tax. ndax xam na ni yii muy wax nii yëpp su ko tuddoon tey Omar mën na ko yóbbu ci yoon ndax nit ku nekk kilifa ga man tey na du yàgg bañ dékk ma micro may wax Balla Gaye lu ñaaw wala dara te sooy ji Omar su ma ko waxoon lu mënti doon mhm. xëy na maak moom yool du mës a xew sama diggante ak moom mais na ko jox cër mhm. tey jii su fekkee tey jii cofeel gi biy wax daa yërëm Sa Thiès wala daa bëgg Sa Thiès na xam ne Sa ak Balla gay ñoo bokk ndey ak baay Hmm, cinq tonnes lii muy wax Balla Gaye yëpp dama yaakaar ni cofeel la rek. daa bëgg Balla da koo bëgg xam nga nit soo ko bëggee mën ngay waxee du ne nit te amoo accès si moom nit ñi yaakaar da koo bañ mais billaahi wallaahi wa taala cinq tonnes daa bëgg Balla Gaye ndax man nii muy toogee chaque jour que jëfee Balla Gaye lii Balla Gaye daa Balla Gaye da Balla Gaye yaa ngi koy fay kay man kay xamalum si am boo xam ci Balla la léegi de <laughs> la la Balla Gaye mu ngi fay 5 tonnes bu waxul ci Balla kenn du ko dégg waaw loolu sant yàlla la tamit maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm mais nañu noppal nag dimbali bàyyi Balla Gaye nag a baax na baaxaay goo xam dina ko teg si beneen cirque sax bu mu amee xaalis sa du ko tudd loolu la war a mais topp Omar rek chaque jour sekk su ma toogee ba mu ne joga yeeg ay màcceel ay màcc ak màcceel da kii nan <laughs> tàngal jogomaay waaw waaw moom daal sekk ton daal mu ngi doon rek yàlla na jàmmam yàgg moom dafa neex billaay dama koy seetaan dafa neex mais maa ngi koy nuy saluer au passage mais li ma ko wax tamit na ko bàyyi xel na xam ne Balla Gaye kilifa la te Balla Gaye tey monument la géejawaay kenn mënut ko fee dindi ndax dafay dugal lu kenn dugalul géejawaay muy roi des arènes loolu waaw tegaat si l'empereur loolu kenn mënatu koo dindi te gëm naa ni dootul amati géejawaay waaw li ma gis nii si làmb ji. dama lay wax benn affaire am naa man gii daal si koo xam ne am naa ci moom yaakaar de. déglu ma fii mox la li ma lay wax nii. Hmm. maa ngi ay poulain maa ngi lépp. mais tant ba ba Balla Gaye tegoon ba muy tool doon Balla Gaye. ñoom ñii ñëpp kenn tegoo si. kenn tegoo si ndax xam nga lu tax Balla ñun dañoo galérandoo dundandoo mu amoon loo xam ne da koo bëgg. nekk ci carrière am bëgguloon dara mais booy yii ma gis ñoom ñëpp ay mbër lañ nag. ay champion lañ mais dañoo bëgg lu nooy. comme li nga waxee ne li Balla Gaye déparé li bala gay muñ ñoom ñëpp bi ñuy toll fii Balla Gaye bi fii ñu toll nii bi fi Balla Gaye di toll Balla Gaye xoolul daray àdduna xool xoolul tubéy bu rafet xoolul yére déggoo ma déglu ma xoolul dara rafet mais booy yi ma gis nii roi des arènes ah du ba de du du yomb de mais booy bu ko fiy dugal fii wala daal da ngay dugal ampleur at fii géej waay du ah. yomb moom booy bëgg nañ jongoma ju nooy téléphone yi rafet <laughs> dalluwaay yi rafet njar seerlu njar yu baax non su ma la xee benn affaire di nga gëm. Balla Gaye daa dem ba dégg daali dem ba tabax ay këram yor étage am yor xaalisam yor doo doog a wane ay jikkoom. wane jikkoy golom mais booy yi <laughs> benn 3 millions ak benn 10 millions mooy dugg seen kër ñoom ñëpp yaakaar ni tekki nañ. teel a wane seen jikko ñu bari. man maa yor booy yoo xam ne man damaa yor ay booy yoo xam ne ay talent bi nekk si ñoom ñoo bari mais ñi leen di critiquer dafa bari. ku nekk façon critique nag dafa bari critique ñu ngi leen den si critique gu mbiru àdduna te waru loolu lépp waru woon loolu lépp waru leen mais maa ngi leen di ñaanal jàmm ak tawféex offre bii ñuy dundee ak fi ñu yóbbu seen dimension bi ñu bëgg a teg seen bopp nañ ko wàcce suñ bëggee doon li ñu war a doon waaw loolu conseil la rek boo xam ne dama koy waxaat am nga saison bu diis nag waaw Fils a bëri ak ki nga xamante ne mooy euh, kii Diène Diouf Kairé Youssou Ndour war a bëri ak doomu dàngu nga am saison bu dix euh, dafa mel na euh, kii sa boy bi mu tuddati euh, Lat Dior am na combat Dugar am na combat Thiat Daouda Fall am na te ku nekk jël nga combat boo xamante ni nga war a saison bi ren ah Lamine am li bari na de. man de nii laa si tëddee njaaxaanaay. naa sañoo def loolu. maa leen yar maa yor samay kur ba mu yefal ñoom ñëpp kenn fekkaguma ma toog nga ne ma kër sa avance baa ngi di à part Fils de Balla. xam nga su ma laajee laaj bi ñu ma seytaane la. man maa la ko wax. ñoom ñëpp seen combat dama cee nëtu ndax xam nga tax déwén licence bu ma leen di toogalee 16 xaalis moo koy def. mais booy kon lañu. waaw déglu ma loolu moom danañ ko déwén licence bu may toogee 16 xaalis moo koy def chaque année maa koy daggal sama bopp ren nag su dee man ak man ku ma gisul si 16 bi xamal ni defuñu ko moo tax damaa pare pour bañ a toog 16 déglu ma barki dem moo Ndiaye laa doon defaat beneen formation entraîneur. ba ci boo yëpp kenn nangul. waa dégg nga fils moo si yëkkate avance xaalisam ne ma am dama koy wax fii pour mu dégg. dama lay wax barki démb laa doon defaat di pratiquer di def samay formation entraîneur di jàng sama xam-xam loolu lépp mën naa leen koo defal. mais problème booy loolu lépp dañoo nay. waaw ah, kay. te amuñu ay mbokk yu leen digal dëgg chaque jour ma wax leen ko tey jii gis nga ñoom ñëpp am leen fukki ah, million. yaa ngi gis xam nga bu doon maa laaj laaj ñu ne abu seetaan la tasati na yaa ngi gis. laaj bi laajuma ko xam nga lu tax. tey damaa bëgg Lamine Golo. <laughs> dafa weex dunq damay bëgg jiitu leen si seen i làmmeñ ndax ñoom ñëpp ñaaw nañ làmmeñ te fu leen neex la ñuy toog wax. waaw kenn amu ci combat ne ma sama sama avance dama kët sa am fukki dërëm a ngi nii. parce que xam nga lu tax soxlawuñu ko gis nga 4 x bii lañ ñee da nga waroon jël 4 geesul nii jëlal ma ti oto bi. ah oto bii lañ jëlal ma gis nga oto bii oto bii lañ ñee. Ah. ba ñoom ñëpp fi mu ne nii. tey jii jàpp nañ waaw dañ maa teg bët. wa tey jii nag amaanaam dama la wax benn affaire man li ma am man maa koy ñafeel sam bopp ñoom li ñu am ñafeeluñ ko ñoom seen bopp kese dama ko bokk di leen si ñafele waaw di bàyyi sama temps di bàyyi lépp di ñëw di ànd ak ñoom di rayante mais dafa rafet sax nga jël sa avance yëkkati benn fukki dërëm ñëw ne ma am ku ko ci bëri di nga am dara non mais amul problème xam nga tax mais ren daal dama lay wax hmm. samay initiative bopp laa jël billaahi wallaahi wa taalaahi ñaata at laa fi nekk ñuy yëkk ñoom ñëpp ñii di am ay combat di yëkkati ay vingt mille ak ay combat million ak i vingt cinq mille di ma ko jox ma koy muñ dootuma ko nangu ndax munoo tey ji man maay nekk si terrain bi ak yéen lu mat trois mois di rayanteeg yéen di defanteeg yéen di ngeen di dem di fay ay sëriñ ay 100000 francs ki ay 200000 ak ay leen seen entraîneur sax un petit maay dagg oto bi maay taal essence di dem entraînement chaque jour maay dem stade di dem essence chaque jour am na si booy yu mbër yoo xam dañuy dem ba stade sax am problème man maa leen di may xaalis pour ñu jënd bii dëgg la man nag sonn naa taay na damaa yoon njaboo naa mais les enfants commencent à grandir. ah te les frais dafa yokk. école baa ngi ibbi. <laughs> Ah man samay samay doom dama leen dugal si école yu baax. yoo xam ne dama leen di fayal sag weer. yooyu yëpp nag dafa metti man nag mbër mu ma ci gisul sam bopp. Mhm. ren duñ ma gis sax si école bi. wax naa leen ko si groupe bi wax na xam nga lu ñu may wax mhm. nee nañ xol bi du jàpp day wax nii rek ah, mais sama xol day jàpp mais barke alxuraan maa lay wax bu ku ma gisul rek mhm. booy bu ciy gis ngeen gis muy bëre tooguma séesam rek xam leen ni mooy loolu ren moom du ma suñu nee licence du ma renouveler damay toog jàpp sama jàmbur man nag li nga xam mooy sama capacité ak sama liggéey muy mooy entraîneur bi ma ne dama koo bëgg maa ngi def samay formation di fay sama xaalis di gën a yokk sama xam-xam laaju ma ko ci benn mbër te moonte loolu tey jii bi ma koy def mënoon nañ taxaw man la booy damay des ci formation nangam laa soxla ñu jox ma ko mais joxewuñu defuñu maa ngi nekk sam bopp mais maa ngi leen di ñaanal seen combat yëpp yàlla na leen suñu borom may leen ndam mais ñoom ñëpp am combat ñoom ñëpp am combat ñoom ñëpp ñoo am combat. te nag ku ne bu génnoon fukki junni jox ko Lamine. fukki junni lan non fukki junni daa tuuti yéen ñii am ay combat ay combat 10 million ay 12 millions ay yooyu di ma jox fukki junni ku ma ko ci jox dama la koy mayaat de man damaa fuuy. dama am xaalis denc naa ay millions. mais man su ma amoon samay fukki millions yu ma denc ñoom concerné wu leen. waaw seen seen lekk seen ñax. lekk daf may neex. tey jii man ma yor un million sama poos ñëw fekk nga yor ñu yor mille francs jox ma ko. man ma lekk ko mille francs yooyu day rëy ci man ma lekk ko. ay booy yooyu yëpp garaawul amul solo te ba ma xëyee maa jëndi pare-brise ba. yooyu toppeewu ma leen dara mais léegi nag nit faaw ma jël samay dara ñii faaw ma tàggat leen si loo xam ne liñ naan du ma yar samay kuy ba màgg balaa suñ màggee yow la ñuy mbëkk bala ñuy mbëkk balaa ñuy mbëkk balaa ñu may mbëkk nañ dem mbëkk ji feneen. <laughs> jërëjëf Lamine am naa ko kontaan ba. Abu maa ngi nii yow c'est Abu su ñuy def émission damay mën a waxtaan ak yow quoi yow xam nga sama waay nga. mais léeg-léeg nga toog sax nit ñi naan labin mooy woo Abu Abu mooy def yi yow yow yaa ma sonol man damay daw journaliste si sax mais yow <laughs> kii di yow ak yooyu fii ma toog léegi nii rek waa 4appuis ñoo ma doon woo léegi nii. non fi mu man damaa waxatul damaa son li may wax daal mooy école de lutte Balla Gaye jàmmang fa yàlla na fa jàmm yàgg booy ñu ngi nekkandoo ensemble di xàccandoo di dóorandoo hivernal la nekk ñii ñu ngi dem fii ñii di dem fii ñii di dem fii ndax hivernal moo moo mel noonu mais su saison bi ibbee entraînement collectif su ñëwee ñëpp dañuy ñëw ñu dajaloo mbësa nga fa incha allah sama adjoint sama xarit maa ngi koy ñaanal jàmm ak taw tawfeex sama raq moom it eh, Mbay faal tamit sama rakk bi école bu ñu def AG man damay ñëw assister de. Eh, est-ce que soo dina la arrangé. est-ce que soo fa jëlee ah di nuyuwaale Père Mbaye Samb bu baax a baax di ko ñaanal wér ak tan ak jàmm. mu dugal ma ci écurie bi. ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu bu baax a baax waaw Pape Mamadou waaw mooy c'est le président quoi c'est le président de l'école de lutte Balla Gaye maa ngi koy nuyuwaale au passage di ko ñaanal moom it jàmm ak tawféex di ko ñaanal ñëpp ñëpp ñëpp di ko ñaanal kulli école de lutte Balla bépp mbër bu fa nekk rawat tàmbale ko seen leader seen mag te defil Balla Gaye de ba si suuf maa ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp yàlla na leen jàmm sonal ku ci nekk li nga bëgg ak sa yéene yàlla na la ko yàlla defal si barke alxuraan ok